ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy ñëw ci suñu deuxième partie wu bilan ñeel élection tabam député yu dimanche 31 juillet 2022 bi ñu weesu. ak beneen numéro spécial bu ñu jagleel l'intercoalition Yewwi Askan Wi Wallu Sénégal bi nga xam ne bu lépp jaare yoon dañuy préciser bu lépp jaare yoon nañ ci bàyyi xel parce que jamono gi ñuy wax ak yéen ngour gangi falsifier résultat manam di gonfler yokk ay voix ci yenn zone yi en complice ak ay mandataire corrompu pour buñi ñuy 53 députés yi des ci liste nationale yi benno mën fa dabu limu ñak ci département yi ñu bari ñoo ngi laaj bu weesoo département yi nga xamni coalition yi 112 députés la ñuy xëccoo naka lañuy ñuy députés yi des muy 53 ci scrutin proportionnel yi ñu gën ko xam ci liste nationale fofu nonu dañuy xol coalition bu ci nek li nga am ci Sénégal gep manam buñu ñu way nga am ci mbollem département yi ci lañuy sukkundiku pour xol ku nek ñaat ngay am ci 53 députés yi dess bolé ko député nga jotam ci département yi plus sa nombre de voix bari ci buñu bolé boole yépp plus say nombre de députés di gëna takku motax benno bok yaakar ci mbollem zone yi ñu gagné ñom jëmono jii ñu ngi jëmo a chiffre yi pour mën a ëppale ci li mu 53 députés yi des te mu war a àtte kan mooy doon majorité assemblée nationale. ndax wóor na leen ni l'intercoalition Yewwi Wàllu ñoo gagné département yi gën a mag ci Sénégal département yi ëpp député par exemple ci législative yi Benno Bokk Yaakaar dafay gagné cinq départements juróom waaye Yewwi Wàllu gagné benn département boo ko déggee foog ni Benno moo dominé mooy ëppale député fekk demewul noonu donté waa Yewwi Wàllu département la ñuy mais un un département bo nonu les ci député amul ci cinq départements yi wa benno gagné li nak la pour ñi comprendre ko ci le système Fall bi permettre walu beuti carte ci zone yi nga élection locale les clés caabi victoire bi nga xam ne intercoalition bi am na ko ci législative yu 2022 yi buñ ko comparé ak législative yu 2017 yi nga xam ni dañ koy reconnaître opposition bi dafa defoon yëfi cuune ba ñàkkoon assemblée nationale victoire bi lañ leen di tojal étape par étape ci ni mu gën a simple pour que même xale bi gën a ndaw xam naka la victoire yee wàllu bi demee est-ce que xam ci élection législative 2017 yi juróomi at ci ginaaw li Macky Sall am 125 députés assemblée nationale yépp li ëpp ci Sénégalais yi voté luñ ko woon. Benno Bokk Yaakaar 49 ci Sénégalais yi 1 million 637 761 doomi adama ñoo ko voté loon. 51 pour maanaam li ëpp ci askanu Sénégal toll ci 1 million 672 674 doomi adama le di de l'opposition bi suis contre Macky Sall ak mais teewul minorité de noonu muy Benno Bokk yakar mo gagné am 125 députés sur 165 jël danaka lepp légui li lan moko waral parce que opposition bi ñi dañu jaar ñi la jaar coalition Wattu Sénégal bu Maître Wad am 552 095 voix. Manko au Sénégal Khalifa Sall am 388 188 voix parti PUR Issa Sall am 155 407 voix Caddo Askanoui, Abdoulaye Balde, am 65 235 voix Alternative du Peuple Ousmane Sonko am 37 535 voix yeneen 41 coalitions yi sur 474 214 voix parce que 2017 dafa bari woon candidat te moonte bu opposition bi boole woon lii ñu am ci benn coalition benn bokk yaakaar du am majorité assemblée nationale ndax minorité lañ bu ñu sukkandikoo ci résultat yi waaye li opposition bi tasaaroo moo leen may doole ndax élection yi raw gàddu la ku jiitu yaay roñ lépp lii moo tax en 2022 pour bañ a mayaat Macky Sall profité ci même scénario bi amoon en 2017 Déthié fal créé l'intercoalition ñu L'intercoalition l' intercoalition été Wallu élection législative yi L'intercoalition ci de ñëw. li coalition a yokko tax intercoalition Yewwi Wallu juddu exemple ci l'élection locale yi weesu fal en janvier 2022 Macky Sall gagné une commune bu ci Saint-Louis en 21 994 voix Yewwi Askan Wi am 17274 voix Espoir Progrès bu Maritou Teuw am 6773 voix Wallu Sénégal am 3449 voix Macky Sall gagné commune bu Saint-Louis te pour bu Yewwi Askan Wi Sénégal ak Espoir Progrès bu Maritou Teuw bolé won 27496 voix la ñu am gagné dëkk bi di Ndar Bokk léegi ci législative yi nag ak le plan di Fall dañ ne képp ku and ak Wallu Sénégal Yewwi Askan Wi ngay votel Mary Teuw Niane ne tamit képp kuy sama soppé ma ngi sakku nga votel intercoalition yé walu ñu dem élection mais waxuma la rek commune bu Saint-Louis mais département bi yëpp Yewwi dafa am 45447 voix Benno Bokk Yaakaar am 34 voix lan moo leen ko may li ñu boole seeni doole bu ñu tasaaroo woon Benno moo jël mbooleem député Saint-Louis yi donc lii méritu Déthié Fall la ndax moo naspexe yi donte amoon ay risques yu bare bari risque bi moo newoon naka la ñuy def ngir électeur bi xam kan ci diggante Yewwi ak Wallu Sénégal lay votel bu duggee ci bureau de vote am côté sensibilisation boobu nag il faut reconnaître que leader bu ci mel Ousmane Sonko def na ci liguey bu am solo ndax wóorul nuko ni mënul don député du bokk mais téwul dafa muy le mayo wër Sénégal jouer ci influence am ngir xamal département bu nek fi walu ngay ni votel fi yeewi ngeen ni votel muy tam benen xétu teggi tuuma ndax ba mu doon woote lu yagul ay manifestation ngir xex jalgati yoon tuké ci ministère bi ñu denk bi réew mi am ba ci biir opposition bi ñu waxoon ni intérêt moo taxoon muy xeex li mu bokkul moo tax mu bëgg a yàq élection yi mais teewul ba campagne jotee donte wóor na ko ni du doon député teewul dafa investiru lu raw ba muy yuutu doon maire wala doon président ak nag mboolem leader yi nga xamante ni bokk nañ ci l'intercoalition Yewwi Wallu donc doon lu choix bi muy woote en tout cas bu ñu xoolee taxawaayam ci campagne législative yi dëggal na ni nit mun naa joxe kàttanam dooleem alalam ak daraja bi ko yàlla may ngir ñeneen mën koo jariñoo askanu Sénégal mën ci bénéficier wu. ñu ñëw nag ci daj dëpp gi maanaam résultat wu l'intercoalition yee wàllu liñ ci mën a jàpp fee bu kenn du laam-laamee. mooy département yi ëpp dayo ci Sénégal la ñaari coalition yi gagné. xam nga Mimi Touré dafa def sorti ne ci 45 départements yi nekk Sénégal Benno moo gagné fanweer yi 30 donc nee na ñoom ñoo am majorité. xam nga lii boo ko waxee ko xamul danaa lu yanu maanaa la moo gagné ndax moo ëpp département yi mu jël. alors ko ci élection législative yi ñu weesu dañ leen di jox benn exemple bu terre à Benno dafay gagné six départements par exemple Gossas Mbirkilaan Guinguinéo Kédougou Ranérou ak Goudiri muy juróom benn Yewwi Wallu ñàkk ci département yooyu noonu mais ñëw gagné benn département dong muy dakaar teewul Yewwi Wallu mooy ëpp la député ndax département bu Dakar Côte sept député la waaye département bu Gossas Mbirkilaan Guinguinéo Kédougou Ranérou ak Goudiri boo leen boolee six député la juróom-benn bennoo ñëwaat ne gañe naa Fatick gañe Tambacounda am naa ñeenti député yi Wallu ñëw gañe département bu Mbàkke dong raw leen am cinq député bennoo dikkaat ne gañe naa Jurbel gañe Dagana am naa ñeenti député Yewwi Wallu ñëw gañe département bu Pikine dong romb leen am cinq député bennoo ba tey ne gañe naa Louga gañe Linguère Amna 4 députés yewi walu ñew gagné ci sakti wawan romb leen am 6 députés ni le élection législative ñu guéné démé benno da fay gagné ñaar ñett ba juroom benn département yaakar ni mo ci nek yewi walu ñew gagné benn département dong romb leen motax bo jëlé département yi benno wax ni la gagné biir sénégal donte wu lepp ndax amna yu résultat yi léragul mais buñu jëlé yi mu wax ni la gañe muy Fatik, Fatick Gusas, Gossas Birkilan kafrin Kungel Malem Odar Gengenew Kaolack Nioro Kédougou Salemata Kolda Medina Yoro Fula Velengra Louga Linguère Kanel Matam René Ferlo Dagana Podor Bukiling, Bakel Goudiri Kumpentum Tambacounda ak Mbour boko bolé 52 députés kon japp len ni benno 52 député lamagum ci mbollem département yi ngi jël nak zone yi nga xamni yewi walu moko gagné ci lu wër muy Dakar juroom ñaari député Pikine ñoom fa yi député Géejawaay ñaari député Kër Massar ñaari député Rufisque ñaar Thiès ñent tiwawan ñaar Bambey ñaar Mbacké juroom Kebemer, Nyar, Saint-Louis Nyar, Ziguinchor Nyar, Bignona Nyar député Poussi Ben, Saraya Ben, Gouromp, Nyar député seju, Nyar, Afrique du Nord Ben, Afrique australe Ben, Europe ba mu daj député Amérique et Océanie yi fa Moyen-Orient fa Ben député Boko Yewwi Wallu dafay am 55 députés mu des Afrique de l'Ouest ak Afrique du centre yi nga xam ne ba tey résultat yi leeragul diggante Yewwi Wallu ak Bennoo foofu itam ñu fay xëccu 5 députés donc jamono ji bu ñu jëlee département yi Yewwi Wallu am nañ 55 députés Bennoo Bokk Yaakaar am 52 députés bu ñu demee nag ci liste nationale yi te coalition yi war faa xëccu 53 députés Yewwi ak Wallu daañu fa tibb lu mu new new lu mu tuuti tuuti ay 34 députés buñu bolé boolee résultats ci Sénégal ak bitim rew gépp bu féké dañuy préciser bu féké ni benno gonflé wul li mu jotaam ci yenn région yi motax ñaari coalition yi mu yewi walu wara rester vigilant ci li xew ci tribunaux yi ak PV résultats yi rawatina zone ci mel Podor ak Matam fi ak vendredi la Macky Sall di jéem a quartier yi ndax xam na li xew xam na ni ñàkk na assemblée nationale intercoalition yee wàllu bu ñu boolee département yi ak li ñu am ci liste proportionnelle yi war am au minimum 86 députés lu mu tuuti tuuti juróom benn fukk ak juróom benn député te lii boo ko am nga li ñu naan majorité assemblée nationale opposition bi mooy ëpp ndaw ca pencum ndaw réew ma dañuy am lu ñu naan cohabitation muy léegi lépp lu ñu décidé ci réew mi opposition bi daf ci am baat moo xam ci budget bi moo xam ci loi ñuy voté moo xam politique bi nga xamante nii moom la ñu namm yore Sénégal kon tax solo bi tey loolu la woon ñi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah